benn waxtu ci bëccëg bii moo jot ci studio euh, Sud FM jot it ci bépp bànkaasu rajo Sud FM yi bisimila leen ci xibaar njolloor yi li ci nar a gën a fës nag bokk na ca wàllu mbas mi nga xam ne mi ngi wéy di law ci suñu réew démb nag ci àjjuma ji euh, ñu nemmeeku ni euh, ñeenti doomi aadama yu yees ñàq nañ ci seen bakkan juróom fukk ak ñaari malaat yi daal xamle nañu ñoom it amee nañu boobulee mbas fukk ak ñaari nag ba ci li ñu duppee transmission communautaire ñu nemmeeku ci Ndakaaru Ziguinchor Diourbel Xombol Popenguine ak euh, Tambacounda tey euh, di ji ëllëgu Laydel Kébir di tabaski bi ñu doon màggal démb wante daal dafa mel ne daal euh, kanamu ñi nga xam ne ñooy teefanke yi daal belliwul dara ca Thiès li ko waral nag ay junni xar yoo xam ne daal dañ fa indi woon di ko fa jaay ci foraawu champ de course daal moo lamb ci seeni loxo wante nag li ñu fa nemmeeku daal mooy njëg yi taxul daal mu wàcc benn yoon suñu ndaw bi ñu teewal ci foofulee di Thiès xibaar euh, tey jii ci samedi gi it ñuy euh, door li nga xam ne mooy ay bés bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu euh, nampal ak wen jox gone yi daal seen meewu yaay yi loolu nag dinañ ci waxtaane bu baax a baax ci ngëneelu ak daal njëriñu li nga xam ne mooy meew moomule ak ki nga xam ne moo jiite sage-femme yi nekk si réew mi di Bigué Ba Mbodj mooy doon ganub xibaar yi dinañ ci toftalit xibaar yi biti réew ki nga xam ne mooy Pape Abdou Abdoulaye Dieye la ñu ciy àndal Elimane Wane asalaamaaleykum dal leen jàmm ci euh, rajo Sud FM ci euh, xibaaru njolloor yi dañu koy door rek tolluwaayu mbas mi tey jii di euh, di benn fan ci weeru août ci atum deux mille vingt ñeenti doomi aadama yu yees ñàkk ki seen bakkan démb ci àjjuma ji te seek ñu doon màggal tabaski bi juróom fukk ak ñaari doomi aadama yu yees ñu xamle ne amee nañu mbas moomule fukk ak ñeent yi nag bawoo ci li ñu duppee transmission communautaire di wàllante suñu biir te xamuñu. ñu fa mu euh, bawoo loolu daal mooy tolluwaayu mbas mi tey jii ci samedi gi du ma ci sori dañuy déglu ki nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu prévention du docteur El Hadj du Ndiaye. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki test yi ñu jot a def juróom fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñooñu fanweer ak juróom-ñett ñoo ciy cas contact mooy ñu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji. ñu am ci fukk ak ñeenti cas communautaire mooy ñi nga xam ni ñu ngi jot ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Thiès am na ci ñaari cas Ziguinchor am ñaar jurbeel am na benn Fanok am na benn Front am na benn Géejawaay am na benn Xombol am benn pikin benn Popenguine benn Pout benn Sacré-Cœur Pyrotechnique benn ak Tamba benn ñeent fukk ak juróom benn si ñu ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak ñaar ñu nga service de réanimation ñeent ñàkk nañu seen bakkan ci bësu démb ajjuma fanweer fan ak benn ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ka ci ñooñu juróom benn junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak ñaar wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñeent ñàkk nañ seen bakkan mu des juróom benn junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci loxo docteur yi ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana te jégal leen di ñaan ministère la santé mu ngi ñaanal ñi des hôpital yàlla may leen tànn ba ñu génn ak jàmm ministère la santé mu ngi ñaaxaat askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe ci digle yooyu nag mun nañu fàttali di jëf nit ñi di jëfandikoo seeni masque ci fépp fi nga xam ne nit ñi dañ fay faral di tase surtout ñu bàyyi xel ci tukki bi ñu nekk temps yi ñi xam ne ñu ngi jóge woon ci biir gox yi di ñibbi si Dakar wala di ñibbi fi ñuy liggéeyee ministère de la santé laction action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. ki doon àddu ñuy teewlu mooy el docteur El Mamadou Ndiaye mu nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu prévention di fàggandiku mu doon dellu si si tolluwaayu mbas mi tey jii ci samedi di benn fan ci weeru août. it euh, bu ñu jugee ci loolu ñu jàll ci leneen ba loo xam ne sax nag mbas mi taxoon ñu def ko maanaam dañoo tëjoon frontières yi euh, ci fukki fan ak juróom ci weeru sulet euh, bi ñu nekk nii bi ñu génn loolu yëpp daal li ko waraloon mooy daal topp dégtal yi nga xam ne moom la waa kër docteur jëloon ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu mbas mi bu ñu sukkandikoo ci agence nationale statistique démographie di ANSD daal xam la nañu ne lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi jëmale ci yenn xeetu roplaan ñu duppee aéronef bu baax a baax rawatina it wàllu fret yi ak ñi nga xam ne daal seetlu nañu ne dem nañu foofule euh, wàcc nañu fa wala jëlee départ foofule ci euh, aéroport international Blaise Diagne bu euh, Diass bu ñu sukkandikoo ba tey ci waa APS nga xam ne ñoo siiwal loolu le mbir yi yokku na bu baax a baax ndax vol yi ci février ñu ngi tolloon ci ñaari junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci weeru mars ak jàpp avril nag ñu ngi woon yooyu le wàññeeku bu baax nekk ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn waaye ci weeru mais bi nag seetlu nañ ci daal ab tan ndax jàll na ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak euh, juróom ba tey bu ñu sukkandikoo ci waa APS bi siwal euh, li nga xam ne daal mooy euh, gëstu bi ci waa agence nationale de la statistique et la démographie nee nañu wàllu fret bi it yokku na bu baax baax ci aéroport bi ndax boo xoolee juge na ci ñetti junni ak ñetti téeméer ak juróom fukki tonnes Euh, jàll ci euh, te junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom euh, jàpp junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar ak juróom-benn bu ñu sukkandikoo ba tey ci waa APS ñu fàttali ne li waraloon Pape Abdoulaye Dièye ñu tëj li nga xam ne moo jëm wàll frontière yi ci dem dikk bi ci jaww ji moo jëm ci wàllu mbas mi moo ko tax mbas mi nga xam ne moo lëmbe àdduna lépp te lëmbe Sénégal wax ba tey ci lu méngoo ko wér gu yaram sax moom wér gu yaram la sax muy wér gu yaram mu tuuti tànk yi rawatina daal meew bi nga xam ne moom lañ leen war a jox saasu ne muy euh, weenu seen yaay euh, ñu fàttali ne nag bu dee dañu daal góor góorgóorlu bu baax a baax ci loolu la di jox euh, ween yi xale yi tuuti tànk yi daal danañ fexe ba sowee luy tollook ñetti juróom-ñetti téeméeri junni gone ci àdduna wërngal këpp noonu nag bu ñu sukkandikoo la ci OMS di organisation bi ñu dénk wàll wér yaram ci àdduna wërngal këpp ñu fàttale ne tey jii ci samedi gi di benn fan ci weeru ut daal la ñuy door li nga xam ne mooy ay bës bu ñu jagleel àdduna wërngal këpp lépp lu jëm ci wàllu allaitement maternel di euh, daal euh, soxna yi jox euh, seen ween yi seen i doom du ma ca sori dañuy déglu ki nga xam ne moo jiite kuréel bi ëmb sage femme d'État yi nekk ci Sénégal Bigué Ba Mbodj ci jokkoom ak soxna Mame Diarra Da nampalu ween nag euh, njëriñ yi mu am dafa bëri ba nga xamee ni ñëpp dañ cee war a jàpp jàppale jigéen ñi dëgëral leen ba ñu mën a nàmpal seeni doom nàmpal boo xam ne du rax dara ba mu mat juróom benn weer waaye nag bu juróom benn weer yi paase tamit ñu mën leen Eh, jàppale tette leen wan leen yan garab eh, wala yan xeeti ñam la xale bi war a mën a jël bu nga xamee ni dina mën a dollik ci ween bi ba nga xam ne dina mën a nàmpal doomam nag diirub ñaari at gën ngaa néew ëmbalal sax lu ko ëpp li tax nit ñi ci war cee jàpp njëriñu allaitement maternel dafa rëy léegi li nu wax mooy mise au sein précoce ci nasaraan ñu ni bu xaleel juddoo rek fanweeri simili jàpp waxtu war nañu mën a jàppale xale bi mu mën a nàmp ci yaay ji parce que soow moomu di génn de zone noonu ñenn ñi sax daan ko sànni ñu wax ko ci tubaab colostrum donc soow boobu dafa am njëriñ bu rëy boo xam ne dara mënu koo roy dara mënu koo remplacer te day tax tamit nàcc nàcc yaay yi deñ wàññeeku ndaxte xale bi bu sexee ween bi commencé nàmp rek day daal di am ay ferñeent yu ci deretam daal di tëj bututu njurukaay ba nga xamee ni nàcc nàcc bi nga xam ne moom moo gën a rey jigéen ñi jigéen ñu bare du dinañ ci mën a mucc ndax le fait ñu nàmpal bu teel euh, boobu gis na ni pour yaay ji dina ko aar gëstukat yi gis nañ ni dina aar yaay ci canceru ween mais également li ñuy wax cancer de l'ovaire maanaam nenukaay jigéen cancer boobu tamit nampal ween mën na ko cee aar ki doon àddu ñuy lu mooy euh, Bigué Ba Mbodj jiite euh, kuréel bi ëmb sage femme d'État yi nekk ci senegal nag li ko waral mooy dañuy door tey jile euh, ay bés bi nga xam ne ci àdduna wërngal këpp moom lañ jagle lépp lu jëm ci wàllu nampal ci wàllu wen njëriñu nampal ci wen nag dara du leen ci ëpp boo leen teewloo bu baax a baax rajo Sud FM ci kanam ndax Bigué mboo ci mooy doon ganup xibaar yi. tey ji euh, samedi gi euh, nekk euh, ëllëgu li nga xam ne moo doon Aïdal Kabir di tabaski démb ci ajjuma ji wante daal boo xoolee kanamu ñi nga xam ne ñooy teefanke yi nekkee ci Thiès daal belliwul dara li ko waral nag mooy xariñ indi woon ci fora bi gën a mag foofulee ci Thiès di champ de course daal xar yi moo lamb ci seen loxo lu ay junni junni daal ña nga fa ne xuus duñ ci sori Babacar Ndaw dañoo yaakaaroon xar yi dana manqué waaye des na bu baax. si ëllëgu tabaski 2020 daral bu champ de course bu Thiès jàpp na ne xar yu bare ñu ngi fay gàññe service élevage yi li ñu jot xayma si bésub euh, samedi ji si suba si rek jege na ñaari junnepp xar buñ si yokkeet ñi nga xamante ne ay camions yu fi bawoo démb euh, jubali seen gox yi ñu bàyyee ko woon euh, Thierno Sow di njiitu daralu champ de course bu Thiès jàpp nag ne si bésub tabaski bi sax am na ñu bare ñoo xamante ne fay nañ xaalis bu cher si ay oto ngir dellu seen dëkk. am nañu tàmbalee dellu bu baax a baax ci guddi gi yëpp ñenn ñaa ngi bay ko barkeeji ñii daara ñii Linguère ñii Kër Momar Sarr côté yooyu daal. waaw ak Fuuta yëpp. delloo boobu du pertement si seen gis-gis mënuñu woon toog fii jaay wala. ah dootoo mën a jaay parce que bu ñu jógee ci tabaski nit ñi dañuy sonn dañuy bëgg xaru trente mille trente cinq mille te loolu moo yombut. Ah, ñii ay jëndkat lañ yaakaaroon ne si ëllëgu tabaski bi xar yi fi des danañ mën a wut si njëg bu yomb ngir yar. mboote laay laaj laa bëggaat fi mu ne mais dèjà maa ngi la waxaale léegi rek mun ni ko trente cinq mun ma quarante cinq albar. benn mboote. waaw ñaari junni fay nga ñu bañ. yi war warul seetlu la wax am bu dee xar bu ndaw boo laal gars yi ay quatre a nga yi fu ñu koy jëlee foofu moo tamit cher na bu fekkee ba nga am camion trois cent mille wala deux cent cinquante diggante Ouro Sogui ak Thiès il faut nga fay trois cent def euh, benn voyage bi waaw situation bu ñu mel jafe-jafe si wàllu tabaski tabaski rawatina daaw ak ren bu ñu sukkandikoo si acteurs yi jàpp nañ ne nguur gi war na def lu gaaw a gaaw évaluation bi xayma waaye xool tey jii leen ma war a doon ay saafara Sidi Bara Fall lii la si xelal état bu Sénégal. lundi lundi prochain normalement war na am CRD boo xamante ne évaluation de la situation dégager ay perspectives ànd ko nag ak ay mesures d'accompagnement di ko liggéey jëmale ko déwén. léegi nag li ñu ci xelal état bi mooy dañ ko ci li mu def effort yi bi ak maladie doore service de sécurité yi pour que sàmm ñu seen xel dal ñu mën a am ay jur bu déwénee ñu indi ko si jàmm ak salaam jaay. Babacar Ndaw Thiès su FM jërëjëf euh, Babacar Ndaw bi demoon doxantu fële ca fora bu champ de course bu Thiès di ñu xamal ne daal képp ku soxla xar ngir yar kook leneen mun nga fa doxantu ndax xar yaa ngi fa daal lamb bu euh, baax a baax donte seen njëkk euh, wàccul benn yoon dañuy jógee ci Thiès bi nga xam ne yéen ñuy déglu ci 102.2 jàll ca Ziguinchor ngeen ñuy teewlu ci 95.6 wax ba tey ci wàllu fête bi Papa Abdoulaye Dieye ginnaaw nag giñ ko amalee démb li ñu gën a nemmeeku ci marché yi foofu le daal mooy salte yaa ngi fa tegle bu baax a baax moo tax it UCG di kuréel bi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu setal moom daal mi ngi ci yooyu le marché ak it yenn ci barab ci dëkk ba foofu le ngir setal ko ñu déglu si ki nga xam ne moo teewal UCG ci Ziguinchor Issa Faye lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Ignace Ndeye. fépp Sénégal rek instant bii ne euh, dañoo gis ne euh, avant tabaski après tabaski euh, maliñ day bëri ci dëkk yi. donc euh, surtout dëkk dëkk yu mag yi euh, day am mbalit bu bëri fii bu ñu faral di produire parce que euh, marché bi day dynamique en quelque sorte léegi comme njaay jaaykat yi dañuy ñëw jëndkat yi dañuy ñëw njaay mi day njaay mi day dox day loolu moo expliqué mbalit mi day bëri day débordé te itam bu fekkee camion amul camion buy dox ci instant yooyu noonu forcément mbalit mi day day day débordé donc loolu la ñuy bañ moo tax comme lundi à partir de lundi système dafa war a dafa war a normal dañu war a dugg ci quartier yi ak sous-quartier yi di di nettoyer di récupérer mbalit mi di mooy loolu moo tax ñu ne dimage bi ni nii suñ ko deful euh, lu des ci semaine bi on sera obligé ñu def ko ci marché bi moo tax ñu def tey coup de poing bii allah ñu def ko ci marché bi comme ça lundi ñu mën a dugg si dëkk bi ñu nettoyer li fi nekk. kon jàpp nañu ne mbalit mi bëri na lool ci marché bi. absolument marché bi marché bi surtout parce que yeneen marché bi am nañ am nañ ci maîtrise. Euh, marché Escale am nañ ci benn bac bac à ordures marché Banete am nañ bac à ordures marché Tilène amul débordement léegi fii mooy mooy waaw mooy fi nga xam ne daal moom moo moo pour ñu pour ñu maîtriser ko parce que amul mënoo mënoo fay teg bac à ordures parce que amul place euh, di coup il faut nga nga bàyyi lu fi nekk rek mooy fii ndaw yooyu noonu nga nga mën a jox boutique yi léegi boo ko defee une journée deux journées mu fees boo fi jaarul mbalit ci suuf lay ci suuf lay lay jëm. waaw euh, marché bu kat bi surtout euh, parce que beneen marché bi instant bi suñu benn bi mu ngi koy récupérer ah, am na mbag yu fa nekkoon fees na léegi yooyu lañ nekk di récupérer instant bii nii mais yeneen dispositif yi fii lañ ko bàyyi fi lañ ko nar a focaliser parce que am ay barakat yu fi nekk am na itam débordé na itam moo tax ñu indi fi benn pelle pelle mécanique ak benn camion ak ak ñaari benn tasseuse comme ça euh, ñu mën a def le maximum pour indi ko fi. xibaaru bitim réew. xibaar yi biti réew yi dañuy koy door ca Belgique wax ci tolluwaayu mbas mi euh, foofule foofu daal yokk na bu euh, baax a baax bu ñu sukkandikoo ci euh, institut de santé publique Syan Sano bi nga xam ne daal saa su ne mooy xool xayma yi siiwal ko nee nañu daal yokk na bu baax a baax ci téeméer boo jël sax mun nañ ne tegu na ci téeméer ak ñeent ndax ca Belgique fi mu toll nii daal mi ngi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti junni junni euh, doomi aadama yu ko amee yu toftalu euh, juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn euh, loolu nag uteeg li nga xam ne moo amoon démb ci ajjuma ji nga xam ne ñu ngi woon ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett junni yu toftalu juróom benn ñu wax ba tey ci wàllu mbas mi jugee ca Belgique demit ci États-Unis foofu it law na fa bu baax a baax ndax ci benn bés rek daal seetlu nañu ne luy tolloog benn junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaari doomi aadama ñoo ci ñàq seen bakkan foofu bu ñu sukkandikoo ci université John Hopkins nga xam ne saa su ne mooy def ay bilan te ñu bàyyi leen xel bu euh, baax euh, baax ñu fàttali daal wàññeeku fa bu baax a baax foofu la ci États-Unis ndax tax na daal ba l'hôpital yi nga xam ne ñoo nekk ca Floride di euh, ñaareelu état bi gën a mag foofu la daal mbir yi dafa takarnaase ba l'hôpital yi fi ñu toll ni daal xamuñu sax fu ñuy gestu ndax bëri ay malade ca male ci wàllu mbas mi ñu dem ci Russie foofu nag ay manifeste gouvernement bi daal la ñuy euh, ŋàññ foofulee te saa su ne muy euh, am ci samedi yi sax ñu bëri it euh, wàcc nañu ci mbeddu capital bi nga daa xam ne daal mooy ñeenteelu ay bés boo xam ne daal manifeste yooyu ñu ngi ko fay nemmeeku Iran moom xam le ne tey jii la ci samedi gi tëj na ki nga xam ne moo jiite benn groupe daal boo xam ne dafa yëngu ci yenn attentat bi nga xam ne moom lañ fa amaloon ci atum 2008 te mu taxoon woon ba luy tondroog euh, fukki doomi aadama ak euh, ñeent daal euh, ñàq ci seen bakkan lii moo gënoon a fës ci wàllu xibaar i biti réew Sud FM ganu bés bi ganu bés bi tey jii ci euh, samedi gi mooy kiy jiite euh, kuréel bi euh, ëmb association bi ëmb ñëpp li nga xam ne mooy sage-femme d'État yi nekk ci Sénégal Bigué Ba Mbodj lay wuyoo day wax nag ci ayu bés bi nga xam ne tey jii lay door te ñu jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu nampal ak wenn jox meewu yaay yi ndo xale yu ndaw yi ñu déglu ko ak soxna Maam Diarra Silva. ñu ngi ak madame Bigué Ba Mbodj moom moo jiite association nationale. nationale des sages-femmes d'État du Sénégal ñu dox tey ay bés boo xamante ne dañuy waxtaanee fépp ci àdduna bi lu jëm ci nampal ak ween muy lu am solo madame Bigué Ba Mbodj. semaine bii dañuy waxtaan ci mbirum allaitement maternel maanaam nampalu ween bu raxul dara donc ñu nekk ci semaine mondiale bi ñu jagleel nampalu ween nampalu ween nag euh, njëriñ yi mu am dafa bëri ba nga xamee ni ñëpp dañ cee war a jàpp jàppale jigéen ñi dëgëral leen. ba ñu mën a nàmpal seeni doom nàmpal boo xam ne du rax dara ba mu mat juróom benn weer waaye nag bu juróom benn weer yi paasee tamit ñu mën leen e, jàppale tette leen wan leen yan garab e, wala yan xeeti ñam la xale bi war a mën a jël bu nga xamee ni dina mën a dollik ci ween bi ba nga xam ne dina mën a nàmpal doomam nag diirub ñaari at gën ngaa néew wala sax lu ko ëpp li tax nit ñi ci war cee jàpp njëriñu allaitement maternel dafa rëy léegi li nu wax mooy mise au sein précoce ci nasaraan ñu ni bu xale juddoo rek fanweeri simili jàpp waxtu war nañu mën a jàppale xale bi mu mën a nàmp ci yaay ci parce que soow moomu di génn de zone noonu ñenn ñi sax daan ko sànni ñu wax ko ci tubaabu colostrum donc soow boobu dafa am njëriñ bu rëy boo xam ni dara mënu ko roy dara mënu koo remplacer te day tax tamit nàcc nàcc yaay yi deñ wàññeeku ndaxte xale bi bu sexee ween bi commencé nàmp rek day daal di am ay ferñeent li dem ci deretam daal di tëj bututu njurukaay ba nga xamee ni nàcc nàcc bi nga xam ni moom moo gën a rey jigéen ñi jigéen ñu bare du dinañ ci mën a mucc ndax le fait que ñu nàmpal bu teel euh, nàmpal boobu gis nañ ni pour yaay ji dina ko aar gëstukat di gis nañ ni dina aar yaay ci canceru ween mais également li ñuy wax cancer de l'ovaire maanaam nenukaay jigéen cancer boobu tamit nampal ween mën na ko cee aar. alors meew bi nga xamante ne yaay bi daf koy jox doom bi bu ko koy jox naka la mën a aaree xale bi ak yaay ji ci boppam. mën naa aar xale bi ci diabète mën na koo aar ci asthme mën na ko aar ci obésité maanaam xale yooyu nga xam ne dañuy taay taay trop trop trop ba nga xam ne ëllëg si mën na leen jural ay yeneen feebar yoo xam ne maara day taali ay musiba naaru raay. nàmpalu ween tamit dafa am njëriñ ci njeexitalu nu ñuy wàññee ndeete ndey ak ak ak doom. surtout nag xale yi parce que xale yi nàmp ween généralement biir bu daw du leen yomb du leen yëpp euh, euh, maanaam ñiir yi daan wax ne seen biir yi metti euh, ñu naan dañ leen daan wa jox ay siro wala di leen jox ay lem ay bër ay kenn woo xamee ni gis nañ yooyu yëpp day indi wàññanti ci wérgu yaramu xale bi donc di nàmpal ween juróom benn weer bañ cee dara continuer ko après bu amee juróom benn weer ba ba muy am ñaari at euh, day am njëriñ yu bari ci xale bi ndax gis nañ ni xale bi xelam dana gën a màcc dana mën a gën a mën a ubbeeku lu muy jàng dana gën a euh, dugg ci biir dina doon xale bu muus xale bu yeewu xale bu macha allah bu am xel. également xale boobu dina dëgër parce que li euh, nekk ci weenu yaay ji loolu mënuñu ko am ci beneen ci beneen soow bu nga xamee ni ndax dafa am ay ay ay ferñeent yu nekk ci euh, soowu yaay ji nga xam ni dina mën a jàppale euh, xale bi bu baax pour mu gën a dëgër dina tabax yaramam bu baax a baax a baax leneen ni tamit njëriñ bi ci am moom mooy dina tax que ñun suñuy mbaax suñuy gëm-gëm mooy li ñuy wax suñu ay valeur Euh, yaay dina ko mën a jox doomam euh, ci nàmpal bu ko defee euh, li ci ngor li ci jom li ci fulla daw ñaaw yooyu yëpp yaay da koy mën a jox doomam ci biir nàmpal bi ndax dañuy wax ni la ndey booy nàmpal sa doom dalay xool nga di ko xool muy mu lay xool ngeen di échange boobu yaay doom di def ci biir nàmpal njëriñ yi mu am rek kenn mënu koo sax xayma liñ ci xam sax lu ndaw ndaw la waaye yeneen njëriñ yi mu làmboo yi mu làq moo ëpp sax yi nu wax. Euh, soowu yaay dafa doon ñàkk bi jiitu ci ci ci xale ndax euh, feebar yi nga xam ni yaay ji mësoon na ko am te xale bi mu mënoon koo dab ah, yaay ji dina def ci ay yaramam ay ferñeent yu ñuy tuddee anticorps yoo xame ni day jaar ci soowu yaay ji ba nga xam ni dina doon dina aar. xale bi soogay juddi di nàmp ci ween boobu ba tax na tax looloo tax yenn ñàkk yi sax am na balaa ñu koy defal xale bi xale bi am juróom-ñeenti weer ndax dina fekk ni ba ba muy am juróom benn weer anticorps yooyu nekkoon ci yaay ji nga xam ne mësoon na def doomu am doomu jàngoro boobu mësoon na def feebar boobu ci yaramam moom moo koy moom moo koy aar. alors mu am soxna yu bëri yoo xamante ne dañuy liggéey ñoom ñoom tamit naka lañu ñu war a mën a gérer nampal bi ak liggéey bi. ñi nga xam ni ñoom ñooy patron wu jigéen ñi nampal. seen société. seen ay entreprise moo xam ci nguur gi la moo xam privé bi la nàmpalu ween tam day yokk koom-koom bi parce que jigéen ji nga xamee ni ci biir liggéeyukaayam ah kilifa ya def nañ fa bërëb boo xamee ni dina mën a indaale doomam bu waree nàmp mu nàmpal ko wala foo xam ne dina mën a tiire lee bi ba nga xamee ni dina mën même bu fu mu nekkul sax doom ji di nàmp ci ci weenu yaay boobu donc dina tax jigéen boobu xelam dana gën a mën a dal jigéen boobu également dina gën sawar ci biir liggéey bi nga xam ne day yokk sax koom-koomu euh, entreprise ba muy liggéey société ba muy liggéey ak yooyu. madame Bigué Bambodj ñu ngi lay gërëm di la sant di fàttali ne yow yaa jiite association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. ñaar fukki euh, simili ak ñeent moo tegu ci euh, benn waxtu ci rajo Sud FM li lañ leen indiloon ci euh, xibaar ci njolloor bi ñu fàttali leen li ci gënoon a fës waxtaan nañu wàllu tolluwaayu mbas mi tey jii ci suñu réew ñeenti doomi aadama yu yees ñàkk ci seen bakkan juróomi fukk ak ñaari doomi aadama ñoom it amee mbas mi tey jile ci samedi gi fukk ak ñeent yi nag bawoo ci li ñu duppee transmission communautaire nekk ci diggante Dakar Thiès Ziguinchor Diourbel Xombol Popenguine ak Tambacounda. Euh, docteur Elma Mamadou Ndiaye nga xam ne moom lañ dénk wàllu prévention dellu si na ci ci biir euh, xibaar yi waxtaan nañu wàllu it ëllëgu euh, tabaski bi démb teefanke yi nga xam ne ñoo nekkee ca Thiès nag fi mu toll ni daal seen kanam yi dara belluwu ca li tax nag mooy seen xar yi ñoo lamb ci seen loxo foofu foofule ca fora bu champ de course bi nekk foofu foofule ca Thiès kaay déglu nañ ci ki nga xam ne mooy Babacar Ndaw di nga xamal nag loolu taxul benn yoon ba xam ne mooy door tey ji àdduna wërngal këpp te ñu jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu allaitement maternel di euh, nàmpal ak euh, wenn euh, lépp loo xam ne nag jëmee na ci wàllu njëriñ ak daal ngëneelu boobule meew kii di Bigué Ba Mbodj jiite association sage femme yu nekk ci Sénégal dellu si na si bu baax a baax moo doon ganup xibaar yi toftal nañ ci it wàllu xibaar yi biti réew ñu sant Pape Abdoulaye Dieye bi ne woon ci xarale gi sant leen nit gërëm leen yéen ñi nga xam ne yenn safo rajo euh, Sud FM bu tàkkusaan jotee beneen équipe dina fi teew ak jàmm ngir dëgtal leen yeneen i xibaar balaa loolu nag bu ñaari waxtu jotee ak jàmm ci kanam soxna Josette Kaly dina fi teew wutuñu si micro bi ngir dëgtal leen xibaar yi ci ni mu gën a gàttee ñu yendoog jàmm